borom bi tabaraka wa taala mu boole ñu jéggal di ziyaare te di ndokkeel te di nuyu sunu kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo fekkee jataay bi ak ñi nga xam ne ñoo ñuy dégg te fekkewuñu ko xam naa ñun suñu nuyoo dañ koy teg rek ci nuyoo kilifa yi nga xam ne ñoo jël kàddu ba jàll ku ci mel ni Serigne Abdoul Fattah waaye ku ci mel ni itam Serigne Sakho Diakhaté ak ñi leen jiitu woon ñépp nag di wax ne rek bu ñu ko mayee rek xanaa ñu tudd ñaari soxna muy suñu bàjjan soxna Bintu Mbàkke ci cëru jiite jiite Tuubaa ci kanam soxna yi waaye it soxna Rama nag mi nga xam ne moo coordonné bés di di bésu soxna yi ci Tuubaa ci kanam di yóbbante nag nuyoo ci ñi ci des ñépp ñi may jàkkaar lool te waroon na mën seetlu waaye temps bi lañ a gañe moo tax di jégalu yi kàddu gi ñu yëkkati ci kanam suñu kilifa yi ci suñu ginnaaw ndax ab taalibe bu demee ba yëkkati kàddu ci kanamu kilifaam ñàkk na pexe rawatina nag muy taalibe bu jigéen te ñun wax dëgg yàlla suñu doole suñu taalibe la nekk waaye nag damay wax léeg-léeg ne. day Cheikhul Khadim radiallahu moo ñu jàngal ne laa tafaalu shay'an bi gayri idnin fal idnu shartun fi qabuli sha'ni dañ koy wëlbati rek di boroom xam-xam yi di wax mu xaalafa ne kon nag mel na ne it ñu digalee te defoo mu am ñu ca nekk kon jëfe ndigal moo waral ñu jël kàddu di ndokkeel ñépp ñu yàlla defal tawfiqi ñu bokk ci Touba ca kanam tey ñaanal képp ku ci bokkagut itam yàlla defal la tawféqi nga mas cee bokk ndax liggéey la boo xam ne sëñ Abdou Fatah junj na ko léegi fa jóge ci lislaam sori na lool mën naa ne sax fa mu jóge ci humanité sori na waaye ñun li ñu joxoon dafa mel ni farlu ci bari xaw naa jàll ci kàddu yi fi jàll waaye nag danañ tënk rek ñetti tomb yu gàtt bi njëkk mooy lu tax Touba ci kanam amee jeexital ni ko amee lii fi sëñ Abdou Fatah léegi lu tax Touba ci kanam man ko am danañ ci tënk lu gàtt bi ci topp nag mooy thème bi ñu joxoon jeexital yi mu am ci jigéen yi ak kër yi ñu tudd ci yenn ci détail waaye bi ci mujj mooy kon nag ñun ñi loolu xew ci ñun lan moo ñu war ci Touba jiital mooy lu tax Touba Ca Kanam man lii mu man wala mu def lii mu def wala mu bàyyi jeexital ni mu koy bàyyee nii yàlla jëm kanam loolu li ci ëpp solo ci li tax man ko mooy lu fi ñëw tegu fa lislaam teglu woon mbooloo xam bu baax ne lislaam diine mbooloo la diine jàppalante la itam nga di ko fekk ci alquran di ko fekk ci sunna di ko fekk ci ijma alquran aayaat yi mu indi ci bëgg ñu jàppalante kenn xamul mu toll mu ne ci gën ñaar yi ñëpp meen mooy wa taawanu alal birri wa taqwa te leen dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla mën nañ ci tudd itam wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu de leen mooy ci buumu yàlla gi yéen ñëpp te bu leen tàqali ko buumu yàlla nag lépp luy samp ne yàlla lañ koy defal boo ci jàppee yaa mooy ki buur yàlla même su fekkee xaj na aaya bi lislaam a taxoon muy wax waaye boo jàppee ci benn koy ci koyee lislaam yi itam ba tey yaa ngi fa bu dee ci sunna yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy wax ne xayru naasi anfaahum linnaas ci gën ci nit ñi mooy ki gën jariñ nit ñi wax ne itam ne sayyidul qawmi xaadim xëñ kii sangub nit ñi mooy ki leen di liggéeyal Touba Kanam ñoo ñëpp mën na leen a moom doon na koo xam ne moo gën a ëppal njariñ nit ñi bam su soog léegi gisuñu ku dem nag moom ci njariñ waaye itam mën nañ ne mooy kii liggéeyal nit ñi kon mën nañ mooy sangub nit ñi kon ki ci bokk mooy sangub ki ci bokk bu dee ci ijmaa dañ ci doyloo Sëriñ Tuubaa ijmaa mooy waxi borom xam-xam yi diine yëpp yi nga xam ne ñoom ñoo ko góorgóorloo ba génnee ko te mooyut alxuraan mooyut sunna xañ na texte bi moo ñëwul ci alxuraan ñëwul ci sunna waaye ñoom ñu def ijtihaad ba génnee loo mënees na koo màndaxi foofu loolu nag ñun dañ ciy tudd mel ni Cheikh Khadim rek li mu wax ci liggéeyal nit ñi Sëriñ Tuubaa bayt yi ñu tegalee ci biir Masaalikul naa ci jàngal lu ñuy liggéeyal nit ñi ban jariñ lañu mën a amal day mel ni boo ko déggut bu baax jariñ lépp danga naan alaaxira la jëm waaye boo delloo ci alxuraan mu leeralal la jariñ loolee day tàmbali ak sëriñ bi wax ne wa qiila in xadara yowmul bahri wa duriba suraatu fawqa naari wa kaabadal waral jawaa wal gumma naadaa munaadin ayna الخدمة للمسلمين فأجابوا أجمعين ويؤمرون للجنان مسرعين بأن يقال لهم انظر الجنة بغير فتنة وغير إثم daal di teg ci ndigal loo xam ne ci benn benn te fax di humoo turran di waj jillaay nee na bu bis penc ci teewee ñu jël suraat gàll ko ci kaw sawara jaam ñi jànkoonte coono ak jafe-jafe jaaxle day am wootekat bu woote ca kaw ne ana ñi daal liggéey jullit ñi ñoom ñëpp ñu daw wuyu si mu ne dugg leen àjjana kenn du leen sonal kenn du leen fitnaal mu daal ne kon liggéeyal leen ñoom ñëpp te def ko ngir yàlla liggéeyal leen ñoom ñëpp te def ko ngir yàlla jooju mooy lu mel ne si am fataan doon junj te mu yittee lool ci Touba Ca Kanam xam nañ ne laaj ak delloowaat ci yoon wi bëri nañu koy wax ci yoonu lislaam laa bëgg wax ne nañ joxe nangam delloo ko ci lislaam suñu borom ba dalee wax wa am fi ci lu dul neex nit ñi Touba Kanam ñëw andi façon boo xam ne moom la wax laaj luñ mën di ko def fuñ xam tudd nañ ko fi sànq waaye dama ne it te di ko laajee di ko laajee luy tax ñu sawar ci joxe boo noppee di ko defee fi nga koy def ci defin bu tax ñépp gaaw koo gis laaje bi mooy lan mooy force woo kenn te force dafa wóoru yàlla su borom bi bind jaam yi moom leen samp diineem diine moom dong laa jàppe diine teewul dane woon bu kenn forcé kenn ci mu dugg ci borom bi moo ne woon wa man yabtaxi xayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al ko nangu te bu yowmal xiyaamee da ngay perte ba noppi waxaat ne laa ikraha fi diini qad tabayyana rushdu min al xay bu kenn forcé kenn ci diine ji en leeral li moom leeral nañ ko ba xam ko li baax ak li léegi nag ku wedde li bon daal di dem ci li baax kooku jàpp ne ci dungu dëgër Touba Ca Kanam ñëw jaar ci même yoon boobu duñ forcé kenn dañ ci dugg su doon ci biir kër sëñ Abdou Fatah Gueye laa dëkk yi muy daj lu pour nit ñi comprendre li muy woote yi du tax ma ko mu forcé ma ne la dama danga dangay bind du ma forcé yi ne ma dangay cotiser dafa may bàyyi librement waaye su doxee tuuti nag conscience bi ne ci sama biir moo may wan ne nii damaa war a bind ndax bés bu set ma gis njariñ li mu wut si ma wut si sama borom bu ko defee nga am yëg-yëgu lii fa innani axdimuhu bi mastafa axdimuhu ila duxulil janna daaril qaraari wal a wal minna ku ma fooge lenn lu dul liggéeykatu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamal ni duma loola man liggéeykatu yonent bi laa bu koy liggéeyale ci ni ko tànne ku mel noonu nag yow mi koy jéem a delloo dikkal da ko war a liggéeyale moom it ci ni ko tànne ni mu ko tànne fuñ ko xamee fuñ xamee ne lii la ko tànnee mooy dañ koo gis mu bind taalif xasiida bu am solo di Matlabul Fawzayni bind ci li mu bëgg yëpp mu mel nii mu wane ni kon bi mu koy ñaan melul woon ni mu ko bëggee mu bëgg mu mel ni mu ko bëggee wérante wuñ nattable wuñ ne yàlla nangu na lim ñaan waaye lim ñaan daa aaju sabab ndax yàlla lépp lu muy maye da def sabab buy tax mu may la sabab yooyee la Touba Ca Kanam ñëw taxaw ci kem kàttan waxuma ne yéen ko jiitu taxawuñ ci woon ah kay naka jekk doon nañ ci taxaw waaye ku am dooleem ñëw def nangam am na sol waaye wàccee sa doole ba tolloole ko ñëpp ne kaay leen ñu ànd def nangam da koo gën ci la ci nit ñi di gën a gis seen bopp nit ñi ñu yëg ne ñoo dimbali kee te ñoom sax amuñu ci da leen di bégloo que nga jël sa lu bari yow ñëw ne leen maa leen dimbalee lii gor su nekk maa defal nit moo ko gënal nit na ko maa la defal looloo tax woote yéen wi doon façon boo xam ne bariwul ko fi te xam nañ bu baax ne euh, Serigne Touba yi bi tudd ci Matlabul Fawzayni yu ci ëpp Touba ci kanam yenn yi def na ko yenn yi ma nga ca yoon ndox mi ñu mujj tudd léegi rek. loolu moo ñuy dugal ci beneen point bi ndox mi ñu tudd léegi rek xam ne ni Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu dafa wax ne asqaytana xayra miyaahin yartawi shaaribuha wa xayra fawsin yartawi yow yàlla yaa ñu nàndal ndox moo xam ne dafa nekk ngën ji ndox ki koy naan day màndi ba day làq ak texe Touba ca kanam loolu du ma ne kii projet la dama naan kii réalisation la commencé boobu ndax dafa fekk ñu amagul ndox mu jot a jàpp mu lijjanti ñu am ndox di ko yaatal di ko yokk di leen dimbali doog a jublu ci nag ko sell waaye bu fekkee ne beneen wet boo xam ne wax na ci ndox danga koy mën a boole waaleeg sécurité bi nga xam ne Touba ca ndox ngir mu am ci askan wi sëriñ bi ne wa maskani sallim min al fijaari wamnun ala al ahli bi ma in jaari sama dëkk bi musal ko ci lépp luy kàccoor te kàccoor xam nañ ni mooy ñiy def naka sudul noonu loolu mënta am lu dul sécurité dafa am lu mënta ñàkk lu dul sécurité dafa am sécurité nag bokk ñu ci lu ëpp solo ji lu koy may ginnaaw yar nit ñi jàll te dinañ ci ñëw ndax Tuubaa ci kanam def na ko mooy fexe ba leer bi yaatu ci mbedd yi ci ruq yi ci bërëb yu nga xam ne kenn nekkagu fay loolu day waral dëkk bi am sécurité te Touba Ca Kanam nim ci liggéey nga xam ne mu toll waaye bu dee li ñuy wax assainissement nga xam ne Touba ñëpp xam ñëpp xam ne ni meloon ndox ay mbalit jaww ju taq ji jaww ji ci boppam ngelaw yi nga xam ne baaxul ci nit ñi

ci biir bari gi noonu ci dëkk bi place yi ñu dajaloowaat bariwaat muy lu mel ne marché yi lu mel ne jumaa yi lu mel ne xew-xew yi màggal yeeg daayira yeeg place yi mbooloo dafa bari te bërëb yooyu su amul garab yu bari chlorophylle di fa wàcc ñuy am oxygène bu doy feebar de yomb bari ci dindi doomu aadama moo tax ndëmbatul garab mi nga xam ne ko doon commencé ci réalisation yi ma ëppal solo man la boobu ndax day yokk wér-gu-yaram parce que ñu doog a ñëw nag ci wér gu ci boppam moom lim ci def da ngeen de santé yi ñu tudd am na ci yoo xam ne fi mu ne ni am fataa di wax ne daanaka centre la waaye am na ci yoo xam ne ñoo gën centre yi ñuy gis poste yoo xam ne ñoo gën centre xam ne ne santé niñ ko rancé woon ci réew mi mooy case de santé ca village ba poste de santé ci koñ bi centre de santé ci xaw na digg dëkk ba ak hôpital bi nga xam ne mooy boole ñëpp waaye rang boobu boo xoolee post de santé yi Touba Ca Kanam defar da gis ne dafa mel ne daf koo anticipé moom sote dem ci kanam centre yi ñu ko centre am na ci yoo xam ne poste yaa leen dëkk loolu tam day lu am solo muy liggéey bu am qualité ndax itam liggéey baax na lool. waaye bu ñàkkee qualité dootu am njariñ loolu yépp nag ma njëkk tudd am na solo la xam waaye bi ko ëpp solo mooy lim def ci wàllu éducation jàngale ak yàlla te njëkkee ci li gën ci xam-xam muy alxuraan Cheikh Khadim radiyallahu anhu nee na kitaabu xayril wara aslul ulumi ma huwa alkitaabu alladi man raddahu xurima nee na téeréel yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy cosaani xam-xam yépp bépp xam-xam xam-xam bu nit mën a jariñoo ci àddinaam cosaanul xam-xam la buñ ko mënoon waxee matière première ba mi ci alxuraanul karim xanaa nit ki egg ci mag koo gis wala mu bañ koo gis waaye ma fa mu ne nag téereb alxuraan bi mooy ressource xam-xam yépp te mooy téere bi nga xam ne ku ko delloo ginnaaw rek yàlla xañ la lépp lu yiw ñoom ñu ñëw njëkkee ci fekkoon daara yi sonn lool suñ daara yi sonn lool ndongo yi sonn mu ñëw daal di ci liggéey boo xam ne yéeme na te liggéey yooyu yi ci nit ñi gën a jàpp gën ko cee gis man dama am na ci beneen bu ma ko gënal bu ñu bari seen mooy formation bi muy defal sëriñ daara ndax itam bu dee dangaa bëgg alxuraan bëgg daara soo toogee rek ñu waxee daara daara yi wala sëñ daara yi ba xultu ba sonn bàyyiwaat dara du changé sëñ daara yi formé leen bañ xam lu ñuy muamalante donga yi ak jëmmi daara ci boppam loolu dafa am solo Touba Ca Kanam def ci liggéey bu yéeme boo xam ne ñi ca ku nekk ci ñoom yéemaat na lu muy joxe benn anecdote ci suñu benn jàngalekat boo xam ne yàlla dafa dogaloon ñu bokk école dafa jàngale mu jàng ca daara ja ba mokkal alxuraan téere yi majaalis ci réew mi dem mu te ni jàng ni ba mokkal ba nga xam daal mu dëgg yàlla boroom xam-xam dëgg lañ ko mën a tuddee waaye bi mu ñëwee di commencé di jàngale ci école yi am na problème ci joxe leçon dana def lu mu mën nag sonn ci lool waaye mënu koo joxe biñ ko waxee ni ko na bokk benn concours ñun ñi fay formé damay seen morom inspecteur yi maa leen raw wax lu bëri waaye bi ñuy wax tukooba tukooba ba mu dem ñaari weer la fa am ñu am feet mu ñëw ne man damaa meloon ne ku am samay dénk ba mu pare teg amul marque ami porte waa xawma lu ñuy defare taabal ci àtt ñoom ñu jàngal ma nu ma koy defare ba mën a defar taabal mën a defar seize jariñ formation lay jariñ pédagogue yi dañuy wax ne da ngay am madda ilmiya door a am madda taalimiya matière xam-xam doomu waaye boo paree dafa war a amaat matière jàngale soo defalee nit formation lu rëy rëy doo ko def yàlla te nag moom mu xam ko ba man koo bàyyi xel dëgg-dëgg loolu liggéey boo xam ne ñu ngi ñaan mu daj yàlla na yegg jàmm waaye am na solo lool te danañ gis bu baax jeexital yu muy am ci daara li mu tudd muy boolu daara li ñuy usal mu bokk ci projet yi defe naa ne loolu buñ ko waxee ñoom Touba Ca Kanam nit ñi danañ ci war a sama ndax fi mu ne nii gën lu yomb ko la koñ bu nekk daara ba fa nekk ñu bëri ca koñ bi seeni doom fa la ñuy jàng te jële fii doom yóbbu ko dëkk dëkk mu jàng keneen jële ci dëkk boobu indi ci daara sawet gën a wóoloo gën a yaakaar rek waaye alxuraan moom yenn su organisation bi amee formation yi am dong bu la mën a jàngee ci bi ko jekki te buñ noppee ñoom ñëpp a yem alxuraan bi rafet la ñuy yëpp nag yenn la ma tudd ci yéen Touba ca kanam bi def léegi nag lu tax ñu ne jeexital yooyu ci kër yi man dama wax ne ci jigéen ñi jigéen ñi ñoom moom kër yi ñooy kër yi ci lu kenn du wet boo nee nàngam jeexital ban lay am ci kër yi neen jigéen ñi ñoom loolu lan la leen defal ndax ñoom ñoo moom kër yi borom xam-xam yi du ñu wax ne almar'atu hiya mujtama jigéen mooy mocceewu population mooy mocceewu société beneen borom xam-xam du feelu ko ne ko wa hiya allati turabbi nisfal aaxar waaye it mooy yar beneen xaaj comme moom mooy benn xaaj bi te mooy yaru beneen xaaj ba liy firi mooy moom mooy société bi góor bu baax ñuy wax lu mel noonu mu ne ma soxna si baa li ñuy wax naan jigéen matut élimaan méttiwu la ma ne ma ndax yàlla séet loolu moo ma gënal leen ma séet mu ne mun la metti ndax yow da ngaa doon imaam ma ne ko ndax lan mu ne ma dangaa war a waajal imaam mu war a màgg imaam moo tax tëloo ko amoo jota ni mu ku doon imam yaa ko waajal ku doon président yaa ko waajal ministre yaa ko waajal keneen ku mu doon yaa ko waajal léegi kon jigéen moom lu waaye def ci njaboot gi rek moom boo ko defal ku jàngal doom ji jigéen boo ko defal ku def dëkk bi set a bërëb bi fajukaay jigéen muy xëy yóbbu doom hôpital moom ci boppam wér bi demal boppam hôpital borom këram wéral mu yóbbu ko hôpital kon moom ku def ay fajukaay yu bari moom moo ko defal moo tax lépp li Touba ca kanam réalisé ak lépp li am ci projet yu exeegul dama koy boole man lépp ne jigéen ña ko moom ñoom la ko Touba ca kanam defal ndax bu dee góor gi xëy góor góor lu ci ba indil la lu togg jox la ko loolu kese la ko lislaam digal yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa moo ko wax moo ko wax sayyidatuna Fatimatu Zahra bintu Rasul dafa wal ci mulee bi kër këru Seydina Ali ba loxo yi ko metti xonq Seydina Ali yërëm na ko waaye loolu du mu ne ko demal ci sa waajur ne ko ñi dem yonent gudde fonteera leen moom ne ko Aliou del génn di wuti di andi Fatima lu Aliou indi na ko defar nañ nga koo jëfandikoo waaw jigéen bi nga xam ne moo war a rooti ndox moo war a toppatoo dugub moo war a togg moo war a uti lu ñuy taale lu ci doon moom la lislaam waxoon ne na ko wuti te def ko kon leneen lu waaye defar ku yombal loolu jigéen nga ko defar ku defar ndox moo ko defar ku defal ay leer ba ñu mën cee jaare jëfandiku ci yeneen mbir moom nga ko defal lépp luñ def mooy moom na ko defal waaye rawatina bu ci boolee ne njaboot bi nga xam dañ koy xaar ëllëg njaboot boobu lu ci waaye def defaloo ko kenn ku dul ndax yaay mooy ki gën a doom mooy ki gën a doom responsabilité doom yaay moo ci ëppale moom la yonent bi ba muy séddale responsabilité yi ci xadisam bu si boobu waxoon ne wal mar'atu raa'iyatun fi bayti zawjiha wa waladihi wa mas'ulatun an raa'iyatihi jigéen ab sàmm la ci kër borom këram ak i doomam te moom it ku ñuy laaj lay doon liñ ko sàmm la woon kon ku la dimbali ci di sa doom yow la ko defal yow jigéen comme yi yëpp nag jigéen na ko moom kon jigéen lan moo ko war ngir delloo njukkal Touba Ca Kanam xam ne ñu baax ne gor su boo ko lebalee lu baax day am yéen fay la su lu munta fay mu nekk ci lu ñépp xam ne yéene na laa fay ñun Kanam moo ñu defal lii lépp ñu tudd lii rek waroon na jar ñu def ci lu nu mën ak lu nu mënul sax ñu jéem ko waaye dara laa wax bu ñu defaluñu woon dara sax waaye woote ci turu Serigne Touba jëmmi Serigne Touba moom defal nañu lu tax ñu war cee jàpp te sonn ci dafa rawa ci jigéen di dëkk Touba moom te Touba moom ci Sénégal gii da nga fay dëkk ci néeg maa nga dëkk fa ci xol waaye mënoo faa ñàkk dëkk wa illaa ñu dëkkal la fa sax ñu dëkkal la fa sa mbokk yaa nga yow si xol fa lay fanaani yow bi bokkut ci yoonu Serigne Touba sax te di jullit boo xamee Touba te xàkkee xaba waxuma nag ñu wax la yeneen yi ci des waaye boo xamee Touba te xàkkee xaba sa xel yëpp day daal di bëgg Touba sa xol bi daf koy bëgg def ci tolloo ci am rawatina nag nga def ko ba pare tegtal da am ñaari fay te du wàññi ci fayoon ki lañ roy itam dara kon bu lii lépp amul woon na waaye rek nga ne tuubaa ji ñuy defal war ngaa xam ne jar na ci yow nga def ci sa kenn kàttan ba jéem ci loo mën te Touba doonoon sa dëkk boo xam ne Sëriñ Touba da ko bëggoon lool jaral ko lu ne ci gis nga Sëriñ Tuubaa dëkk bu ne jële nañ ko fa wala moom jóge na ko boppam te métti boobu waaye bu jógee Tuubaa da ko métti bi ñu ko xañee Tuubaa xusuuri xalal wal ahlu anni tafarraqat li madxi alladi anhu madix asir bi mu koy wax dëgg la fu mas a dëgg càll waaye Tuubaa moo gën a tax ndax yeneen mbir yëpp defaat moo tax ñu xam ne Tuubaa la doon métti waaye nag doon gor soo xam ne bu xasee wax ci dellu ginnaaw te ginnaaw moo ne woon katabtu fil bahri anni la amuddu yadi ila nasara abidil maayi wa tini looloo tax ci mujjug dundam mu xemmem Touba bañ xam ne daf koy xaw def taw ndax bëgg Touba waaye neen ginnaaw moo ne woon ca géej gi sama loxo duma ko tàllal mu ko jëme ko yi leen ñaan dara ndax ñoom kat dañuy jaamu doomu aadama jaamu tàppi nit ak ndox looloo tax ñaanu leen ñëw Touba ñoom demoon nañ ba di ko xaar pour bu leen ko ñaanee may ko waaye moom mu ne moom it du leen ko ñaan yow mi murit nga am chance bu toll nii di tudd di nelaw ba ñu ne jógal kaay dëkkal Touba defoo dara yow yàlla la neex rek mu may la ko nga dëkk Touba yow lépp luñ woote ci Touba war nga caa rey sa bu ñu doon loo fi liggéey pourcentage bi ñu koy génnee maye yi ci sax ngir sëñ Touba nga war a nangu rawatina ñu ne boo génnee nangam dañ koy delloo ci dëkk bi lañ koy delloo bi tëkk loolu war na tax ñun a yokk suñu laxasaay te sëriñ Touba moo tax ñuy wax loolu it bu doon def moom Touba noonu noonu rek moom Touba en tant sëriñ la moom dëkk bi nañ ko bëgg bëggale kon it sax mu jàmm waaye daf ko def dafa ne dëkk bi moom yàlla la ko wutal du boppam wax na ko suñu borom subhanahu wa taala ci yu bari dañ ko dégg mu ne laka daaru salaami rabbi wa tuubaa yaa moom daaru salaam yaa moom tuuba yàlla nekkal ma fa dañ ko dégg muy ñaan yàlla xëbli idaamata ma tuhibbu wa tartadi fi maskani tuubal lati laka tunsalu may ma may saxal toujours li nga bëgg yow yàlla ak li nga gërëm ci sama dëkk bii di Touba nga xam ne ku fiy wàcc rek yàlla xam ne fi wàcc loolu noonu sëriñ bi bi mu koy wax xam ne moom nekku fa woon ci saaxir xanaa biñ ko noppee gis ci kaw suuf lañ ko door a gis mu dëkk fa ñun ñoo fa dëkk di dox di dem ak dikk ak a wax ak a lekk ak ñun loolu sëñ bi ñaanoon dañoo war a fexe ba mu am te mënees faa dëkke niñ ko bëggee ak ni ko yàlla bëggee lu dul ne jumtuwaay yi ñu koy defee dafa am te jumtuwaay yii Touba Ca Kanam nii moo taxaw pour defal ñu ko bañ am ko niñ ko bëggee kon ñu ñëpp war nañoo def li ñu mën ak li ñu mënul ba Touba Ca Kanam am réussite totale ci ñaari millions yi doomu aadama yi bëgg par weer kenn ku ne ci ñun war na wax ne man ci ñaari millions yi laay bokk nga xam da war a metti nga ne nga ne damay bind ñu ne ah ñaari millions yi de mat nga ne waaye bind ma ba noppi di jooy da koo jar yonent bi ku ñëw ne man damaa bëgg a dem mu ne ko ah yow day munoo dem dangaa tuuti dangaa mage wala dangaa am ay waajur yoo war a toppatoo kooku daf koy jooy ak ko ndax bëgg a dem xare ndax tuyaaba ju rëy jëjale xare badar bi ñu taxawee ba dara desut lu dul ñu war a dugg ci biir mbooloo booba corps bi am na ba pare bañ war a duggante ñu wax al malxama war a am saxaabi bu ñuy wax Umayr ibnul Xamaam dafa taxaw yore ay tàndarme ci loxo yonent bi romb ko ne njëkkante leen dem ci àjjana ñoo xam ne yaakaar ne asamaan suuf Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko waawoo mu ne askay askay yonent bi ne ko lu tax nga ne askay mu ne ko xanaa bëgg caa bokk yonent bi ne ko acca ca nga mu sànni tàndarma ne su ma fi toogee di ko lekk ba muy jeex day yàq daal di dugg ci biir yéefar yi di xeex di xeex bañ daaneel la radiyallahu taala anhu murit bu murit bu ne looloo ko war ci Touba Ca Kanam dañ ci gañe lu bari dañ ci gañe liggéeyu yàlla dañ ci gañe liggéeyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dëkkub xaritam ba ak sant billahi inni lin nabi abadan xillun wa hibbun wa ma abaahu yàlla xarit bi yonent su ne maa yi ku ci def yonent bi ngay defal yemute nag waaye doon liggéeyal ki nga xam ne euh, mën nañu wax ne moom léppam Sëriñ Tuubaa la ko jox muy Cheikh Mouhamadul Moustapha radiyallaahu ataanallaahu euh, maqaamahu fiinaa wa ayyadahu wa nasarahu wa ja'alahu zuxran wa faxran lil islaam kooku nga xam ne moom dafa bëgg Sëriñ Tuubaa ba mënu koo tudd te xam nañ bu ne ko xama xama xam la bëggul Sëriñ Tuubaa rek ndax ne mooy maam bu doon loolu kese dañuy wax ne loolu sax du ak nite ko saa maama ni laa koy bëggee nit du ko wax fu sëñ Tuubaa nekk foofu la koy bëgg xam ne moom dafa nekk njariñul mbindeef yu ànd te moo xool ne allahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri daa naf'in bila darar kooku mooy Cheikh Xadim luñ ko wooteel ñépp a war a mujj ñu ngi jégalu bu baax ci kàddu yi di sant mbokk yëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum wa